asalaamaaleykum. maaleykum salaam. maa ngi ziar. eh sama sëriñ. maa ngi daaw def ko daaw def ko ren fekk daaw de. eh oh daaw de. si la nekk foofu. waaye bàyyi ma waaye waaye. asalaamaaleykum. pardon. asalaamaaleykum. Waaw waaw wàlli rek cinquante grammes yàlla daa bind te yemalewul liggéeyum nday njaayum bitig la ku rek la perte sa ndey ko liggéey sa yaay liggéeyal ñëw naa ci biir kër gi see na ma neex am la ma neex suñu borom muy ko kenn ku muñul doom muñ nee naa la ku ñulug sa jëkkër yàq say doom jigéen bu dul wan na baat du jur doom ju am baat te bu jurul doom ju am